jërë ngeen jëf euh, mbokki Bawal info mbokk yi euh, ñoo ngi en direct ak euh, Mor Thiam Mor Thiam a ngi ci commune bu Diourbel Mor Thiam nag mu nekk responsable politique APR nekkoon ci ginnaaw Dame Diop Mor Thiam yaa ngi ci en direct Bawal info moor maa ngi lay nuyu. maa ngi lay ziar Moustapha. Mor yow nga nekk responsable politique APR nekon ci ginnaaw Dame Diop waaye tamit yaay président association collective pour le développement des artisans di Bawol yow. da nga bàyyi Dame Diop bàyyi APR dem ànd jeeg Mohamed Boun Abdallah Dionne ndax information boobu mën koo confirmer waaw lu wér la euh, lu wér la loolu am na tey war naa ginnaaw Dame Diop war naa ginnaaw APR war naa ginnaaw Benno Bokk Yaakaar dam wuy ji Mohamed Boun Abdallah Dionne futur mhm. président Euh, deux mille vingt quatre. lu tax nga ne futur futur président ak lan moo la ci APR ak lan moo la ci dam Diop ba nga bàyyi leen dem ànd ji ak euh, Mohamed Boun Abdallah Dionne. waaw man man bi may ànd ak euh, Dame Diop ci politique. la taxoon ma ànd ak moom. ba dem seeti ba ba ba ànd ak moom ba nga xamante ni yàgg na lool bokk naa ci ñi ko yóbbu Dakar Dem Dikk. bokk ci ñi yóbbu def trois yóbbu Fondef bokk ñi ko yóbbu trois FPT. bokk ñi ko yóbbu def ministre ñaari yoon mais gis naa ne. ñun ñi nga xamante ni euh, nekkoon nañ ak moom ñu fondé euh, euh, bokk ñi nga xam ñooy fondateurs yi ci benn bokk yaakaar ci APR gi ñu bokkoon moom nekkoon si wetam gis nañ ne moom daf ñu sàggane. moom daam Diop. waaw sàggane nag daf ñu saggane joxuñu joxuñu suñu cër. maanaam amul si yéen amul si yéen respect amul si yéen considération nga bëgg a wax. voilà loolu moo am. parce que mënoo ànd ak mënoo bokk ci parti ba nga ciy bokk ba président Macky nekk nekkagul président de la république ba moom muy doon dara ñu bokk dëkk Kër Cheikh ñu gis ne Kër Cheikh man ci man sama gis-gis man Mor Thiam dama jàpp ne Kër Cheikh dañoo manqué benn responsable bu dëgër boo xamante ni ëllëg mën a nekk ministre wala ëllëg mën a nekk futur président moom yàlla def mu nekk fii di jàppale président Macky Sall ñu sóobu ànd ak moom pour may ko doole mais finalement bi ñu ko mayee doole euh, ba mu ndambay tànk yi bari ba mu nekk ministre dafa woon ginnaaw euh, nitu démb mi nga xamante ni ba dara du dara ñoom la woon seet ñi nga xamante ni ñoo ko doon sàn ñoo ko doon euh, sànni xeer mu jël ñooñu teg si wetam dooleel leen. waaw Mor Mor yow da nga bokkoon ci APR nekk ci ginnaaw mm. Dame Dame Diop ngeen di jàppale président Macky Sall bàyyi nga Dame mm. Diop léegi lan moo tax continuer woo jàppale candidat benn Bokk Yaakaar bi Amadou Ba euh, dem di ànd jeeg Mohamed Boun Abdallah joon waaw lool it lu yomb a tontu la parce que ñun bi ñu ànd ak Dame Diop dafa dañoo ànd ak moom woon ñu présenté ñu président Macky Sall wax ñu programme président Macky Sall ñu gëm ko ànd ak moom ci liggéey boobu di ci dox président Macky Sall macha allah def na liggéey bi mu war a def li mu na te ne Sénégal def nañ ko muy deux mandats bi mu defee deux mandats déclaré na moom dootul nekk candidat bi mu dee ne dootul nekk candidat nee na moom nañ ko may mu tànn bi muy tànnee gis nañ ne Amadou Ba la tànn bi mu tànnee Amadou Ba profil yi man sama gis-gis man jàpp naa ne tànneef bi gën mooy Mouhamed Boun Abdallah Dionne. maanaam Amadou Ba doyu la. non Boun Boun Abdallah moom gën a doy. àndoo ci maanaam àndoo ci choix bi président def. ànduma choix bi moom d' accord uma ci. man moom moo tax fa ma d' accord dem fa. léegi euh, yow euh, yaa jiite euh, association bi nga xamante ni tey moo ëmb artisan yu yu Diourbel yow nga nekkoon ci ginnaaw Dame Diop léegi est ce que man nga lan nga mën a apporteel Mouhamed Mouhamed Boun Abdallah Dionne. li ma apporté loon daam muy am ndam fii ci Kër Cheikh am ndam ay élection euh, ba deux mille dix neuf bi Macky Sall di falu deuxième mandat ak premier mandat ak élection yi ci topp muy mm-hmm. am ndam ci Kër Cheikh di am dam ci Diourbel mm-hmm. la ma mënoon ba ba loolu di ko def incha allah ma naa ko te incha allah danaa ko wane Diourbel ba ñëpp xam ne wane naa ko jërëjëf euh, Mor Thiam ñu sant di la gërëm waaw ma ma ma profité rek euh, gërëm sunu sunu sunu sunu sunu jigéen. soxna Mame Saye Mbacké nga xamante ni liggéey bi lépp moom la. Mhm. moom moo dégg Mor Thiam gis taxawaay Mor Thiam ci politique ci ginnaaw APR. mu gis ne war nañ ko mën a jëli mu jël si ma waxtaan ak man ma jël samay engagement ànd ceeg moom ci liggéey boobu. jërëjëf Mor Thiam ñu fàttali na yow APR nga nekkoon bàyyi nga APR Dame Diop mi ngeen doon jàppale tamit bàyyi ngeen ko dem jàppale ji Mohamed Boun Abdallah Dionne ñu lay sant di la gërëm.